jërë ngeen jëf am na téeméeri nit yu nekk ci réew mi yoo xam ne kilifa yi réew mi taxaw nañu tem ci tànki nangu seeni passeport diplomatique l'observateur moo ko bind ci ñoom na ci benn magistrat bu bu ca nit yoo xam ne seen bay secrétaire d'état la woon ci na kenn koo xam ne baayam ne woon na fi ñoom ñëpp ak yeneen nit yéen kay bi nee nañu ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye jox na seeni tur te dogal bu ni mel nag ma nga jugee ca palais de la république li ko jurit loxob union européenne génnu ci ndax doon nañ sàkk lu ne mel ci réewum sénégal njiit réewum sénégal di Macky Sall la sénégal mi ngi ñuy xamal ne daje na démb ak ay alliéem jox ay leeral ci ni mu taxawalee gouvernement bu yees bi ak it li mu ne dafay dindi poste premier ministre ci réew mi ci allié yi Macky nga ca woon Cheikh Sadibou Fall Moussa Sy Farba Senghor Modou Diagne Fada Souleymane Ndéné Ndiaye yu Macky Sall yépp nga woon ca ndaje ma l'observateur ne ko ba mu PDS Ousmane Tanor Dieng Abdoulaye Balde ak Landing Savané les nañu Abdoulaye Balde ñëwul woon waaye yónnee na fa ndaw yéenekaay bi nañu ñaari ngi ñoo xam ne teewoon nañu ca ndaje ma mu di maître Alaaji Diouf ak Souleymane Ndéné Ndiaye ba ñu jëlee kàddu gi di wax wax nañu ne ànduñu ci dindi gi ñu bëgg a dindi poste premier ministre ci réew mi leeral nañu it li tax ñu wax ko waa force démocratique du Sénégal Le Quotidien ne nañu ci kàddu seen coordonnateur Babacar Diop nee nañu poste premier ministre bi ñu bëgg a dindi ci réew mi opposition bi ci réew mi yépp ñoo war a bokk booloo xeex ko ba du Vox Populi ñoom waa force démocratique du Sénégal ak seen njiit Babacar Diop ñoo nga fay wax ne li Macky Sall bëgg def ay wor yu rëy la ñu ne li leen ci gën a yéem li ci gën a doy waar mooy bu président de la république demee bay guerre député yi ci assemblée nationale ngir ñu wooteel ko luwa bi Babacar Diop ak i mbokkam ne jot nañu xamal Macky Sall ne constitution bu Sénégal du tuba yi bàyyi jagal ba fu la neex xutti fu la neex taf l'observateur mel ne ku naan ñu xutti beeg taf bi des na ndax Macky Sall démb ba muy dajeeki leader yu Benno Bokk Yaakaar yi xamal na leen ne élection locale yi ñuy wàcc réew mi mu am ci date bi ñu ko jàpp am mu ñàkk caa am mi ngi aju ci li ñuy tënkee ci dialogue bi mu woote yéenekaay bi nañu coow li Macky bàyyi na ko opposition bi Les Échos nañu ci lu wér sax ne démb dégg nañu ko mu ne dialogue bi mu woote ci réew mi bu ñu demoon ba yegg ca dina proposer ngir ñu reporter élection locale yi bu ca ñëpp àndee ñu def ku ne ay élection locale ne maire yi Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne maire yi ci réew mi ñoom it ñoo ngi sàkk ñu boole leen ci mode fast mi di ko doxee ndax nee nañu acte 3 de la décentralisation bi bokk yéexal seenub liggéey lu leen di gën a néewal doole doole du dox jàmm ubbi leen source a coowal 94 milliards yi ñuy mbambu ci réew mi ci diggante directeur des domaines Mamadou Mamour Diallo ak Ousmane Sonko yéenekaay bi nee nañu commission d'enquête parlementaire ba ñu taxawal ci assemblée nationale te juróom-ñeenti membre nekk ca ñoo nga ca liggéey ba waaye laata ñuy convoqué Ousmane Sonko ak Mamadou Mamour Diallo am na ñeneen ñu ñu war a njëkk auditionné ba noppi muy ministre budget ba woon ministre des finances ba woon ak it directeur noppee nag soog a woolu ñoom Mamadou Mamour Diallo ak ñoom Ousmane Sonko direct info nañu Ousmane Sonko nee na demul nee na wuy jiwul commission d'enquête parlementaire ba ci assemblée nationale buy wuy ji procureur de la république lay wuy ji ndax mbiri 94 yi xobu xël la romb na gémmiñu tef li ñu ko bëgg a defloo ci assemblée nationale Ousmane Sonko nee na yëfi xale la yëfi caaxaan la te moom doxul ci loolee nañu dox dem seeti leneen lu taxawoon te tàmbale doxaat mu di grève bi boulanger réew mi nekke woon démb ak bërki démb soleil national nee nañu dakkal nañu ko nekk Vox Populi nañu saako bi doon jar 17500 wàññi nañu ko ba mu yegg ci waaye meññee yi def loolee du sedd ci ñoom ndax dinañu ci ñàkk lu toll ci benn milliard ak ñaari téeméeri million lëkkut jee nañu li saafara coow li li tax lakkati mburu yi suspendre seen grève bi loxob ministre du commerce di Aminata Assome Diatta ma nga ca bu baax a baax ci ndajem waxtaan mu seqoon démb ak meññee yeeg fédération nationale des boulangers du Sénégal fa la gindi Sène moom la ñu ne dafa violé doomam bu jigéen bu toll ci ñaar fukkeet ak ñeent te doom ji am na jëkkër l'observateur nañu te du guléet waa ji ngoom di def loole ndax te dee na fi beneen doomam bu jigéen ba ñu tëjoon ko juróom ati kaso